bëndut boo yoroon waruura ku nekk tii asimi mbokk yi internet boo yoroon waruura ku nekk tii asimi di émission koli yen émission am den du tuusi haare bo tuusi hore ore kenn na reere da sey émission émission ɗum bo wande yuri won laha fm tv fm tv nonde won non dut fm tv nonde wonde e daro alpha yiba rek doyde keñ kuli yen tan de bara nong nongde fiɗo mbiya ɗo de on ɗo du do sin bara kuli yen tan de de kuna yeng iya yengoto ɗo mo hampo ber mo hampo jieur mo hampo basket a basket o yeng yengoto ni tegga fm tv ɗema da ken yeero kuɗɗo son ɓo toujours mbaɗa fm tv de wotere sam wa de sam bu daro alpha ɓoy won bu daro alpha won koyke daro alpha champion won sa kola daro alpha ñe filone garga ba wota ɓo to ko are garga fi émission emision yen Mm-hmm. di fm tv yiyamde no yakare ndut mm-hmm. wota akay daare be ba mm-hmm. agar ga fay akoy gënduti wa avant tout ma maire woro worora me mm. woro fm tv mm. me ro woro ra ko yaaso mm. wa mine ga gar garga don kelo dere halara bo yuri yuude be champion nda ga jamani ben fa de e buru arenda wala buru e arenda wa garga jamani be e buru arenda waaw ndaxte deux combats ren. Hmm. victoire yino a défaite yino quoi. victoire yino a défaite yino. Hmm. mais Garga nduttu wonde defere Koroban fa fo hego hego combat ni fa labuda fi kende. non xam naa bo o zorra juum juuma sax. Hmm. mais mi yaakaar daa mi bëri ni koo defet defet laate. est ce Garga fi ba de wonay won mbër boo xamante ni. kendo kendo wala mbur ba hamde ne jour ban varde ala ay da et di lahta defa da har won da ba no so mi fosa ngi mbori jare sa kay mm. waaw parce que mo ham di mom bis defet atia mo boga ay ya bis ndam mm. mais defet wadi ay ndam mo moy buro ni mu yuhwiti mm. defet lahra mu yuhwiti mo di waro kenan mais so mo mi hene mbori nga hamni mi ne rekile lamba garga ah. topa buro kire wa en tout cas mi topa buro 2019 2010 waaw 2019 arena. Hmm. ça veut dire que 2019 2020 Garga Pang année balance. année balance balance. est ce que mbër jotul. woɗɗe tokkil ana bëree. waaw waaw wàll na quoi. Hmm. waaw retard Covid de bokk na. Hmm. waaw Covid bokk na en plus avant Covid mumu mboka tabine yu so quoi waaw tapu mboka ta est-ce que viewde wotu wonde garga wam hega hego avant tan tan do mbeur bala mbeur am mbeur fa ot mbeur ni yubi mbeur wi de lokre fan mm. andere ta ndax yiba dama da wa no mbeur bo do wono jara muhammadu jom joma ja problème lambo mi mm. yagar mbeur no du aba fi te am mbeur bu ne mm. yagar ya, arbe sere yorlo ya, fay buro en hmm. plus que mburda dana hewwoto hmm. data waw parce que ɗon watte yu teyo ako won yuhondo data toon te ya, hmm. arenda cakki ƴeene ɓoyi keloto rek wonda avance ra hewo waaw est ce que garga yewena won ban bara par ce que mburu tout tami wonoɓe de mburda dana hego so mburda dana hego so est ce que ɗo garga dana hego mburjane non mi wondate mbur mbëri càng rek avancé na ayan mi ñambi léegi laala hmm. hmm. a mbindi teew ɓe hoki leera wota wallum aren waɗa hom fi garga ɓoyamdene garga ere sohla ele kiƴede mine ɓoro arra wa pour ah. hmm. wa mboro mi lah sanji skerbil mi mbeɓ parce que fe comprendre parce que nawle so dar ɓuutu yuhuwo par ce que foni wono mutay o mbaɓat arena lahra dal ƴeem woɗɗi borondo du ga yuhuwo waaw garga e écrit waa so mi ye Grand Médine mbooloo nag parcelle e parcelle Grand Médine mbooloo mhm. Garga est que xam be kiileere dalboro Garga dalboro kiili bi waa en plus soro yeema xambo mi dal xaal lamb 2011 mais bu dee arena moom mi dal boro 2017 waaw Garga boro file Daaro Alpha mhm. dale Garga boro file faame hobo si ko yaaye a bappe a yaaye ɗum mhm. man ɗi waa mairie fàttali ko nag yii garaaw de nag mm. waaw parce que lamb min won bidi moom so dabo quoi mm. waaw yeel de grand frère réseau mu deera waaw xam nga mm. ay ñoom Mbaye Tyson xam nga ay Jean Eumeu xam nga Tapha Tine yaa ngi dégg ay Abdou Abdou Diouf xam nga gars yu bëri ay Paul ay Kayre dama leen daan fekk si montagne bi di leen seetaan waaw mine also ko yin caat waaw a mino olsa hoyin cak ɗewi no bururo dal neɓa ata sokowa hmm. mono sombe ga jeɗimo ola wara fog mo taforama hen mbor en hmm. waaw yi waɗa hmm. la ɓek so lambo quoi wallum lamba wallum lamba yiɗa lukki mise garga ɗi wallum lamba yiyamde ɗe dundetere fiɗe lamba yiɗa lukkina mise garga wa ƴawa mom yakar fi ɓille woro mom fimin wonde ni keyli lus waya so yemin ɗo hamalla mom lambo mom wota keri misik lambung om demak da fara bis bi yalla saka dal fa di dal ye hukum misik wadara fi min tilni fi fi dabadi ye hukum misik bi waaw way garga di yere joti get di filone di walum bororo mo mhm. am di defet mhm. mo am di ni lamba gañ gañ dabari di mhm. boroy yam dene garga tok ni halata di wali lambira yiba on bi miska misko est ce yi ba garga yoto di en tout cas mom fu poser des questions et la solo mom Ah, dari yemino wongon rek lahde lambi humo lahde daro alfadiya ha bamo humo entrainede ni mi yengga afsobiti mo entrainede waw farko dogal de mi lahde yeyino musique gaya won won won fi bureau mais jambari so a joomi so mon mi entraine ni ori ɓe ha mi payi lambo mi kene est ce que vous comprendre mu payi mu ñàkk bëre quoi mm. exemple léegi nag kono amida gaya won wonmo pokka ngemo mo bayde mo ɓurode ko dogal tan minen mu te abbe no mburina wonma balla omo deg sanrak waaw léegi gayano kendo soro nak mm. iwa bokka yenga hamne hukso mm. musique par ce que wortoto mbiɗi hene ya konda minen so keni mm. waaw kono woni mba wota kelora mm-hmm. dare mbiɗe wota tipot garga amam ballara garga e ɓoro are bo baha ba kay pour ñi siiba waaw pour ñi siiba wàllum làmb wote yii mhm. daal lokki neba garga moo xam de takkusaan moo xam de mhm. elek moo xam de fajar moo xam de ngoon mhm. garga pankar de làmb ni wote ni era yiba a ceelera keño soso waaw xam naa ni moom laxte objectif eyo premier combat arrangé moom bokk yi hog neba parce que mi yëg biti mi hen dombor dëgg deuxième o bee hug neba ara quatre tournois nga xam ne mi tikkowo avant combat arena sora mi ɓeɓɓora ano jaw bokke yehu so neɓata irambi so waaw parce que momu yakar a yiɓanani rek premier combat ye garga arena mhm. garga humo boro lamba saaku mhm. i baas saaku mhm. fom lelaɗo ni ɓotu tolle en même niveau premier combat ye garga arena fo cangge lele ndakaru tribune wortoro ɓotu na coow ima si banan ba a tolluwayi bisi ba humu mande af gargafe ba wa ko humu bitte ƴiroɗo di. Mm-hmm. woni la fala arendera, ndera ga ero ha o ha o nde mm-hmm. wala public nde fimera e bureau ɗo mais mm-hmm. laha mu ni dal mi yelde tribunal mon non a hier dara de da humu rek mais yibe neni sa fi yella mbapat ko musique sa parce que dara ne yi nga xamni foy buri plus de cinq personnes six personnes ɓe natta kusan faaj fubburo amburi fi keni ɗo ba bisa temɗananira ba mum hende yiga hamni mum pour ça mbafat sah da hokki musique waaw wo wonte garga kañe courvagne kenna laaɓe kanama mhm. yibananfa garga irata hare dema ɗafa en tant que mbor wonte kenna laaɓe kanama ɗare kañe courvagne wa lamu mum fote gaye oltera ku si nekk ak commentaire yi ce que fait comprendre ɓe mhm. ay won yin est ce que fe comprendre mais so ɓoyi yel combat areni so gayna mi yaɗɗiyero laɓlabu ni ɓowo cak yuwi yakaro fiti mine ha tami heltere haɗe ni doylore mi keni ɗere mi yakar mbiɗi ɓoyi ha haran fi yiyat aw laɓɓo ni doylore da fi keni ɗe wawa nda garga woda laata ɓelam No pas encore ika gar lah bele bavani ada hmm, no di mom yi la rek yo go waaw manam lamba gar gar lah bele wala yi da ka ar la bele no lamba ne sax de waaw di mom bele mom e eh, ya ko be rek ori ko be misirale dal ay mit ko manam wata ah. ko mit le bela ya ko fay be jamane ben ba ko bolal lamba waaw dara yeso dara lamba parce que mo te grand frère rek so nga xam ñu kuru bela bi wa hmm. no buru nice tafuni wa haban dara mina mina le wa dara dana te o bidi ya wono wono rek be bele wagne dara mbeur quoi di mm. wala so wagne dara mbeur fm tv mm-hmm. tele xamanteni dara hom dutto tele xamanteni mm-hmm. dutto mu yakare la mm-hmm. wala acca tokka fi dara lo de mina wanara na de bo fi nongi wona nyaka no mine do na toñwa na do do sum fm tv ba wata acca jakalata garga mm -hmm. na wana are koy mm-hmm. serel fm tv mm-hmm. yin serel na mm-hmm. wona koye sérel ɓuuna wona hende sérel yiɓa bangi ken garga en tout cas contente rek contente torop torop torop parce que yifine ko mum meɓet i kiil parce que fait comprendre fina halati nda ay tilni lah gina tilni ko dogal bidi la lah ra no boy fi hen o rek keñu ayna sos sip sip sore wa deg yalla sos na sip ta meron si de tilni hen i tele wow ni hen tele ga ham tali ganda la wax hmm. meron ron santa mi ron bo parce que yewé ya mom hande day rafet trop trop wax de yalla hmm. ta boy ol sori mom keñu ay sos trop di daru alfa ndut yen nim la de mm-hmm. yen la ta contante gaan mm-hmm. keñu yen du sosel de mm-hmm. di ak mbok nen ah, man ci yu da fa <laughs> won di ak mbok dina sosari fo musino ngek na yo fi na faye ko lo fm tv le ga da ko li yen sañ won di helay mol helay maison helay ken kuna ke yewende a fm tv dewa aron hen ɗo a jabba uh-huh. fimmin lesani ɗi wokoro puɗɗo sum mbaɗa uh-huh. fm tv uh-huh. wono ki mbok fami wonɗon de léegi weer sos sos bo am dene koyaas o ɓuri tokna rek keño sos sos sos sibaji nen koli yen saña fm tv yen ne on jamma jërëjëf jërëjëf mbër <laughs>